njaam si yàlla su tuuti suñuy wax sëriñ Amadou ñas dëkk Kaolack ci xadara bu ñuy wax lew na ñaseen di sët ci sang bu tedd boobu ñëpp xam muy Seydil Hadji Abdoulahi Niass radiyallahu anhu di wayjuru xalifatul xaaji Mouhamad xalifatul xaaji Mouhamad jur alxaaji Babacar alxaaji Babacar Niass di ñaareelu xalifa mam xalifa mooy suñu wayjur ñu ñuy wax sëriñ Amadou Niass. da wax ne li waraloon nga gis problème mu assemblée bi mooy da nga tëju guddi di xoolal président Ousmane Sonko. Mhm. kon ñàkkut ne yaa ngi xool mbiri président Ousmane Sonko. Mhm. te jamono jii ñu toll. Mhm. ñu ngi wax ci moom. li ñuy wax si moom mooy euh, moom dafa génn def déclaration ne moom day nekk candidat en deux mille vingt quatre. ñu bari ne du am. parce que ñi fi nekk duñ ko ko duñ ko ko bàyyi. loolu jot nga cee gis dara. xam nga waxoon naa ko ci vidéo bi passé waa ji def ma waxoon ne ma ndax Ousmane Sonko fekk bis boobu. ci la Ousmane Sonko def déclaration kandidaa am. Mm-hmm. waa ji laaj ma ci ma ne ko Ousmane Sonko dana nekk candidat. ba pare te incha allahu rabi bi an bi xawlilaay wa quwati 2024 ku bëgg gis président de la république xoolal Ousmane Sonko te loolu dañu ma ci te moo am wallahi alazim donte ne nag am na ay fakkastal yu ñu gis danañ ci ñëw. président Ousmane Sonko ni ma ko waxee woon yàlla daf ko leel ay nit ñoo xam ne dañ koo bëgg bëgg bëgg ba mënuma laa wax bëggeel gi nu mu toll. Mm-hmm. ñu ñu. ne ñu ñun de am na ñuy soxla waaye suñ soxla yi bëgguñ nga ñaan ci dañoo bëgg nga ñaanal président Ousmane Sonko ñu duggloo ma xalwa ma dugg xalwa man foofu laa xamee Ousmane Sonko foofu laa ko bëggee foofu laa àndee ak moom wallahi alazim hmm. ndax taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën Ousmane Sonko taalab yàlla la hmm. taalab yàlla la bi ñu gisee li ñu ci gis moo tax ma waxoon ko li ma la ma ca waxoon Ousmane Sonko candidat am li ñuy laam-laamee nii yëpp incha allahu rabbi kenn kenn ci àdduna ku yàlla bind wallahi al azim ku mën a tere Ousmane Sonko bokk bokk présidentiel bii di ñëw amut man maa la wax lii ak ku koy teree jël yàlla dogal na dogal bi doonte mhm. lee ne nag yëg nañ ne ci jamono ji passé def nañ defaat nañ ay ay ay mbir ci wàllu woowu mhm. ginnaaw bu ñu defee vidéo bee ba pare ndax du duñ ko bàyyi fii ba 2024 noonu la ñuy continuer di def ndax mhm. yàlla dana maye ba mu yàgg mu jël li maye woon dëgg la léegi nag biñ xoolaatee gis nañ ne jël nañ ay nit ay sëriñ wallahi lancim li ma lay wax lu am la jël nañ ay nit ay sëriñ comme ñun ni ñu dugalee woon xalwa Ousmane Sonko ñuy dugg xalwa ñii di def leneen ak leneen kenn ku ci nekk ngir indi ay gàllankoor ci moom ngir du bokk waaye ñooña wallahi lancim dañuy sonn rek waaye yàlla dogal na lii féeg féeg féeg ñun ñu ngi ci liñ nekk te du man maa ci nekk de mm-hmm. ña nekk laa wax man yàlla ma wan rek yàllaa ma wan loola waaye ña ca nekk feek ñooñe ña nga ca loola wallaahi alazim kenn mënu kaa teree doon euh, président euh, président de la république Sénégal 2024 incha allah. sëriñ bi da nga da wax ñaari mbir. bi mhm. ci njëkk mooy dañu engagé ay sëriñ. Mhm. yuy def ay ñaan ak mbir. Mhm. ngir mu bañ a bokk. ci bépp xeetu ñaan waaw beneen bi mooy moom si jëmmi boppam. sëriñ yooyu lu ñu def dañuy sonn mënu koo teree bokk. ko am euh, kon ci ci ci loolu rek bu ñu la déggee bu baax mooy bokk gi moom. li ko li ko suturaal rawal ko ba mu bokk. Mhm. loolu xëy na mën na koo may dara bu àggee ci ci élection moo koy may dara du mën na kaa may dara de moo koy may dara ay ñaan la. wax naa la léegi ne la dafa am ñu ko ki ko bëgg boo xoolee ne ki ko bëgg yëkkati xaalisam ñëw fay ma man fay keneen ak keneen dugguloo ko xalwa ci président Ousmane Sonko noonu la amee itam ay boroomi xam-xam. yoo mhm. xam ne dañ koo bëgg di ko ñaanal yàlla. ak ñu ñuy fayaat ne leen ñaanal leen Ousmane. te boobu moo gën a foor ñaanal yàlla ngir mu avancer moo gën a foor moo gën a gaaw gën a am doole ci ñaanal yàlla ngir nit ki daanu. dëgg la donte yàlla nag moom yoonam nekkul ci dara boo ko ñaanee mbon mu may la mbon boo ko ñaanee mbaax mu may la mbaax waaye maye mbaax moo ko gën a yombu maye mbon. bala laa hmm. bay may mbon dana ci insister boole laak ñu la ci dindi ci sa xel ci sa xol lu ne. boole laak ay tolof tolof lu nekk ngir nga baloo la boo ci insister mu doo di la ko bàyyee waaye lu baax dala koy yombal. Hmm. boo bëggoon a jóg léegi sangu sol sa yére yu rafet dem jumaa ji dala koy yombal waaye boo bëggoon dem baar ba mbedd yi dangay ngay teggi hmm. da ngay bañ ku la xàmmee gis la kula hmm. xam dangay bañ mu gis la di teggi di jaar yi muy jë muy sori waaye boo bëggoon dem jàkka ja dafay yomb da bëgg hmm. ñëpp gis la yàlla mbaax bu koy mayee moo koy gën a yomb mu maye mbon maye mbon ci yàlla yombut waaw du ko maye waaye bu ko doomam ja doom eh, jaamam sàkkoo mu bàyyee ko ko nii la moo tax ma la ñi ciy sonn dañuy sonn rek waaye kenn mënu kaa teree doon président de la république waaw loolu de laa bëggoon a laaj kenn munu ko kaa tere <laughs> wallaahi lazim li ma lay wax du caaxaan 2024 moom d'après yow mën na jàpp ne Ousmane Sonko mooy nekk président de la république 2024 yéen da ngeen ñëwaat ne ma ah, ñi ngi lay ndokkeel ci ci ci falu Ousmane Sonko man maa la wax lii euh, sànq def nga fi ay révélation ci président Ousmane Sonko ci dina doon candidat yemoo ci nga ne dina nekk président de la république. Mhm. léegi nag dañoo bëgg a xuus dëgg dëgg dëgg ci jëmmi Ousmane Sonko. Mhm. tey yow mi nga xam ne yàgg ngaa jëflanteeg ay nit xam leen ci jikko. Mhm. xam leen ci jëf xam leen ci wax tey jëmmam lan nga ci mën a jàngate waa jëmmi Ousmane Sonko euh, xam naa duñ ci mën a sori lu bari. ndax xam nga àdduna dafa xaw a naqadee waxee. te yàlla daf ñoo dimbale comme ni nga ko waxee ñun nekkuñu sëriñu tariyaax dañoo bokk ci famille boo xam ne dañ leen a naw di leen déglu di leen bàyyi xel mm-hmm. bëgguñoo wax loo xam ne dana am ñoo xam ne danañ taxaw weddi ca mm-hmm. wax ca naka sudul noonu laal ca famille ba wala ñoom ñu yàqoo ca bëgguñ loolu waaye li ñu yàlla wan ñu xam ko ñun ci président Ousmane Sonko mm-hmm. bu fekkoon ne yàlla dimbale na wane ko sénégalais yépp wallaay lazim dana ñu neex ndax nit la koo xam ne ci jëmmam jub lañ gis ci suñu ci suñu seet ci moom ci suñu xalwa hmm. jub lañ ci gis dëggu itam moom lañ ci gis hmm. jullite itam moom lañ ci gis maandu it moom lañ ci gis wallahi lazim xam nga euh, euh, président Ousmane Sonko bi ñu duggee xalwa bi hmm. li taxoon ñu dugg xalwa ba yii ma la wax nii yëpp dara bokku ci woon waaye yàlla wan ñu ca ñu ne lii duñ ci yem ñun danañ ci gëstuwaatal suñuy gëstuy bopp suñuy gëstuy bopp moo ñu xamal lii ma la wax yàlla wax naa la yàlla loo sàkkoo xam ci àdduna yàlla mën la kaa mën na la kaa wan mm-hmm. dëgg la comme ñun gis nañ kii xool ko ñu jàpp ne wala xam ne kii mooy li ki gën ci senegal ñun kon war nañoo xool ndax maanu la mm-hmm. war nañoo xool ndax jub na war nañoo xool ndax jullit la war na ñoo xool war nañoo xool war nañoo xool leneen ak leneen mm-hmm. lépp xool nañ ko alhamdulilahi rabbil alamin nit du ñàkk defo doomu aadama amul man man ak keneen ak keneen a ci yam nit du ñàkk défaut du ma wax amut benn défaut de waaye nag li ëpp li doomu aadama yi soxla hmm. ci nit xëy na defoom bu ko amee ci boppam la ko am hmm. waaye ci nit ki gisuñ ci benn défaut moom wallaahi azim buñ ko ci gisoon yi dañuy wax ne lii la hmm. jéem caa ñaan wala ñu ñaanlu ca wala ñu wax ko mu ñaanlu ca mu deñ ndax yonent bi sallallahu alayhi bi ko yàlla bindee dafa yónni jibril mu ñëw opéré ko jël xol ba lépp lu ca nekkoon ci iñaan wala soxor wala wala wala wala leneen lu mu manti doon hmm. ñu dindi ko ca moom ku du yonentu bi nag am nga loolu hmm. xëy na mu baree mu tuutee ca yam waaye yonentu bi kese ko amul moo tax may la ñàkkut defo nit du ñàkk defo faw mu hmm. am defo waaye defo ba mu am pour boppam la mais du pour askan wi kon alhamdulilah loolu lañ loolu loolu daal lañ ci mën a wax ci jëmmi Ousmane ko mais am réew it pour nga jiite ko mu jëm kanam. dañuy wax naan euh, yemut ci ak njub rek yemut ci am ay ay ay ay vision ak ay projet mais it nga jig réew ma da cee am solo mais bu ngeen ko xoolee est-ce que moom aussi ci jëmmam jig na réew mi. xam nga jig réew mi mooy lan. Mhm. yàlla du tànn ci mbiram yi ku koy yàqal Ousmane Sonko yàlla moo ko tànn. Mhm. Ousmane Sonko euh, ñetti at ñeenti at ci gannaaw maanaam boo xoolee bët bu set ay mbiram day yokk xoolal Ousmane Sonko ñi mu doon jànku ñi xam ne ñoo koy attaqué moom du ci tontu kenn. yàlla moo koy fajal ñooña yàlla mhm. xam na ne. du sama classe gi ñooy ñaan naan diw mi tooñ Ousmane Sonko nañ ko toroxal de wala diw ak diw déedéet wax naa la léegi ne la taal bu yàlla taal la mm-hmm. sànni ci mat rekk gën waaye képp ku dem ni da ngay ronxe ak mat di fay force da lakk mm-hmm. du Ousmane moo lay lakk du ñu koy ñaanal moo lay lakk mais yàlla mi taal taal ba moo lay lakk mm-hmm. Ousmane jig Sénégal yi moo tax lii am ci jamono jii lii am Sénégal wallahi alazim li ci ëpp nañ ko gërëmee Ousmane Sonko gouvernement bi li ciy jub ak a néew nañ ko gërëmee Ousmane Sonko de. Hmm. parce que moom rek moo fi nekk opposition bi bu fi nekkutoon gars lu leen neex la def. mais fi ne nii képp koy def da nga ko sóoraale. Hmm. képp koy sàcc ci xaalisu réew mi maa ngay njuuj njaaj da nga ne danaa ko defee noo xam ne Ousmane du ko yëg wala du ko xam. ndax bu hmm. koy xam di la weer. loolu rek jig la. loolu rek jig la. beneen beneen fànn bi nga wax léegi nga junj ko euh, moom gis nañu ne. bokk na ci nit ñi nga xamante ni aussi lépp loo sànni ci moom rek sa bopp lay dellu siwaat comme balu tenks booy dóor ci miir bi muy dellu siwaat ci sa jëmm ñi ko fi attaqué di ko wax wax yu ñaaw ba àgg ci di ko saaga ay ndey gis nañ seenu mujj loolu suñu borom moom moo koy jagleel wala ñoo xam ne ñoom ñoo koy ñaanal comme yéen ñi nga xam ne nii lu jàmm rek ngeen ko yéene yéenay mujjee loolu naqari leen ngeen ngeen fayantoo wala nu muy demee. ah man boog bokkuma ci ñuy fayantoo. Hmm. bu ma gis mu dëng di def naka sa du noonu damay ñaan yàlla yàlla gindi ko jubal ko dindi ko ca lam nekk mais duma ma di ko lor déedéet. Hmm. man bu ma sañoon adduna bi ñëpp kenn ku ci nekk da ngay nekk ci bonne condition doo am benn jafe-jafe. Hmm. kon du ma doomu aadama. Hmm. moo tax suñu wàllu ñaan sax amul benn doomu aadama boo xam ne boo ñu doon jox multi milliards nañu lii laa soxla def nit lu bon wallaahi lazim duñ ko duñ ko def. duñ ko def kon duñ duñ koy lool Ousmane Sonko yàlla moo ko aar ñaan nag mi ngi ci. ñi ngi ñaan ñi ngi def suñuy mbir ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi def seen i mbir moom it mi ngi def ay mbiram. est que takkalu leen ko ay assurance. <laughs> waaw ah, xam naa daal en daal xam nga nee naa la yàlla. Uh-huh. kum tànn nañ ko tànn rek. Mm-hmm. ñun liñ ci gis wallahi lazib yow mi may yow mi may laaj ak ki may seetaan buñ ko gisoon li may wax lu ko raw la ñuy wax. kilifa gi lew na gi ay mbir yu garaaw a ngi ci de. <laughs> waaw <laughs> ay assurance yu ngi ci. xam nga xam nga lew na. Uh-huh. yàlla dimbalee nañu. président Senghor. ñu doonte leen li may wax ne fépp a koy wax. Mhm. ku ne du boobu demee mu ne la fii la Senghor falo fii la mhm. Abdou Diouf faloo fii la Nangam falo mhm. waaye président Senghor wallaahi lancim lew nañu seen la ko mam Khalifa Niass falee. loolu histoire la bu siiw. dëgg la boo xam ne carte ba ko fal sax ba ñuy contribuer carte bay mujj sax sama maam Khalifa Niass da kaa waxoon. est-ce que comme ni ma waxee li du ma wax sax comme ni ma waxee waaye moom bi mu ñëwee daf ne waa diwaan. ña ngay naan wiiw Senghor te pourtant booba lamit ngay lay lay xëccoog Lamine Gueye di jullit mm-hmm. bu doon bu doon ab jullit rek la maam Khalifa Lamine waaye la yàlla dogal loolu la gis wax ko mm-hmm. Abdou Diouf Senghor moomu ma lay wax tey man sama way jur moom dëkk bu ñuy wax jaaga moo ko sanc ca xelxom xam nga da ngay dégg xelxom jaaga jaaga ci boppam sama way jur moo ko sanc sanc googu mu ko sanc mm-hmm. Senghor moo ko ko may te seqante ak ñaan moo taxoon mu may ko ko moo taxoon mu jox ko fa àll bu dul jeex la fa am dégg nga léegi nag euh, Abdou Diouf mi ko remplacé wallahi alazim fii la ko euh, doomi maam xalifa taawab maam xalifa ñu koy wax alaaji Abdoulaye Niass ci tàntab ziyaara la ko fale mhm. Abdoulaye Wade ci tàntab ziyaara la ñëw Ahmed xalifa ñëw vidéo yaa ngi fi mhm. yooyu boo demee yaakaar naa RTS ak yooyu noonu loolu yàgg ya mhm. ab boobu Ablaye doonagut président mu mhm. Abdou euh, Ahmed xalifa yëkk jo wax Ablaye Wade jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne xool leen yéen yéen yéen mbooloo mi fi dajee ku bëgg a gis président de la république xool ko élection yi di ñëw moo koy gañe élection yooya di ñëw moo ko gañe Macky Sall vidéo yaa ngi fi Alaaji Ibrahima xalifa bi mu fi ñëwee jógee ci Ablaye Wade tiit Euh, ci néegam la ko dugal photo photo yaa ngi fi mhm. ay photo sax la am ñu summi gannaawam ñu koy bind alaaji ibrahima di bind di bind ci jëbi def ko lam ca def neko ko insha allahu rabbi yaay falu président de la république ko ca def ne ko woon nga am ñaari manda wallahi lazim mhm. moo tax euh, euh, Macky Sall manda mandat gars yi koy wax nii ñoom ñooy xelaat rek waaye ki ko faloon nee na ko ñaari mandat la ko waxoon waxut ko woon ñett bu ne ko woon ñett dama naan ah bëgg naa Ousmane falu de waaye sama waa ji nee na ñett mhm. wallahi loolu laay wax waaye ñaar la waxoon ñaar rek lay doon du doon ñett Ousmane Sonko itam wallahi azim insha allahu rabbi bi hawlillahi wa quwatihi hmm. yàlla du lim ñu may du ko nangu wallahi azim danañ ko fal du ñun ñoo koy fal yàlla moo koy fal jaarale ko ci sénégalais yi waaye suñ ñaan suñ kurus insha allahu rabbi ba 2024 mu doon président de la république ci dara nag hmm. xam nga luñ ciy ut ñii daw di ñëw di ñu ñaanloo nit ñi dañoo sonn Mm-hmm. sëriñ bi fu ne fu tollu nit ñi ñëw sëriñ man aw ma xaalis aw ma liggéey defal ma ñaanal ma nangam ak nangam gis nañ ne président Ousmane Sonko bu ñëwee ñun danañ noppalu mm-hmm. ñaan yàlla yi boo amee liggéey doo doo dootoo ñëwati ci ñaan yàlla liggéey di boobaa xam nga luy nit ñi ñaan mm-hmm. wéer gudd fan kese rek la ñuy ñaan waaye boo bëggee téeméeri soxla bët bu set ku dee yàlla téeméeri soxla fuñ jëm fuñ jëm président Ousmane Sonko bu ñëwee nag incha allahu rabbi ñaari soxla rek lay doomu aadama yi di am muy gudd fan ak wér ñaar yooyu te yooyu yàlla koy joxe mm-hmm. waaye am maa ay liggéey ak développement ak leneen ak leneen incha allahu rabbi lépp yàlla dana ko ci def waxoon naa ca vidéo ba le ne yàlla moo ñuy gane si mm-hmm. nañ ko préparé ku yàlla di gane si da war a xam ne am nga gande <laughs> dëgg te yàlla ñuy gane si ci <laughs> sànq ci biir wax ji sax junj nga ko mooy kaaw xalifa euh, Sall ak euh, Karim Wade mm-hmm. ñoom dañ leen di amnistier pour que ñu mën a dellu siwaat bokkaat ci langue politique bi. Hmm. yow am nga am nga am nga gis-gis que ñoom dinañ ñëwaat bokkaat doon ay candidat la ma ca waxoon rek laa cay wax ndax lañu lañu ca lañu ca yàlla wanoon moom lañ cay gis ba léegi dama leen waxoon ne leen ñoom ñaar ñooñu danañ leen bàyyi ñu bokk élection présidentielle ba pare ne leen danañ bokk de buñ bokkee deuxième tour mooy am ñoom ñu daw daw daw ci gannaaw Ousmane Sonko man maa la wax li ah. lii du dañ ñu dem dem ci gannaaw Ousmane Sonko incha allahu rabbi bi hawlillahi wa quwwati yàlla jox Ousmane Sonko kon mooy jël deuxième kon de bu ñu la déggee mooy Khalifa Sall dana bokk waaye du doon président. Mhm. Euh, Karim Wade dana bokk waaye du doon président. waaw kii doon président mooy Ousmane Sonko te deuxième tour la la la ko suñu borom di fal. du ma wax duñ doon président waaye 2024. ah 2024 duñ doon président <laughs> waaw waaw waaw 2024 moom président Ousmane Sonko. waaw ndax vidéo dafa gudd. am maa la ca gannaaw nag. Uh-huh. wax dëgg yàlla xooluñ ko yàlla wanaguñ ñu ko. Hmm. waaye 2024 daal xam nañ ne Khalifa Sall du doon président hmm. de la république euh, euh, Karim Wade du ko doon Ousmane hmm. Sonko mooy doon président de la république li ma la wax du deñ mais leneen nit bëgg naa bu fekkee ne xoolagoo ko mhm. saa yoo ko xoolee nga wax ñu ci mhm. bu dee xool nga ko it nga baaxee ñu ko mooy président Macky Sall mi fi nekk mhm. ñu bëree ngi laam-laamee troisième candidature am waxuñu sax troisième mandat mais troisième candidature mooy ñëw ne damay bokk ci ci jongante bi te ñu bëri nee nañ yoon mayu ko pour mu bokk ci jongante bi loolu bu fekkee ne seet nga ko bëgg nañ la cee laaj xalaat boo ko seetagut it bëgg nañ nga seetal ñu ko <laughs> waaw xam naa alhamdulilah am na lu ñu ci yàlla xamal waaye nag hmm. li ma wax léegi rek dañoo nekk ci réew moo xam ne dafa doy waar hmm. gis nga bi ñu taxawee ne Mimi Touré du doon président de la du doon président assemblée uh-huh. waa ji ne ñu ah foo ko teg ak li Mimi Touré campagne yëpp ma ne koy yàlla yoonam nekkul ci loolu bi bi génnee dafa am ku ma woo ne ma sëñ bi sa vidéo bi maa ngi ko denc soobe yàlla xaw ma vaar lañ koy wax xaw ma ne ma maa ngi ko montage montage boo xam ne mu ne ma naa ko montage maa ngi ko boo xam ne denc <laughs> sëñ bi kay yow yàggatut maa ngi lay xaar ma ne ko ah, alhamdulilah yàlla rek moo mën a gàccal doomu aadama waaye incha allahu rabbi ñun duñu am gàcca <laughs> waaye gis nga bi affaire bi amee uh-huh. bokk na ci ñi ma njëkka a woo te bokk na ci ñi nga xam ne audio ñu tasa audio audio bi muy waxee ñun ne ñun wax dëgg yàlla gisut ku mel ni ñun ci ci ci ci lii nii. ndeysaan wallaahi alazim audio boobu moom envoyé wuñu ko waaye ñun nit ñeneen nit envoyé nañu ko ñu dégg. mais wax ja daa rëy nag mu ñuy mu ñuy mu ñuy muy muy seedewaat leneen. ma ne alhamdulilah gis nga yàlla moom lam naroon gis nga yàlla ni mu wëlbatee ba moom far leneen la wax waaw wax ja dafa rëy waaye rëyut xam nga nu mel. Mm-hmm. comme ni nga xamee heure bi jot. nga mm-hmm. xool rek toog ki xamut heure wala ki fi nekkut. Mm-hmm. nga wax ko heure moom danaan ah kii nu mu def ba xam heure bu gisul ne yaa ngi yore montre waaye boo yoree montre xool heure yomb na noonu la mer rek sëñ bi xam nga dafa am loo xam ne it sëriñ yaa ngi koy def ñiy dem vaar dafa yomb trop nga ne diw dana falu diw du falu waaye yow la nga ca teg mooy yéeme mooy kii falu mm-hmm. nga joxe ne góor lay nekk mm-hmm. te kenn xamul ci géewu politique bi la loolu mooy yéeme ca wax ja mais boo yemoon ci Mimi Touré du falu diw keneen diway falu loolu rek mën nañ niñ mën nañ ne da kaa tànte wala da cee dal mais wax ja wax ja looloo ko réyal xam nga yàlla dara jafewut ci moom uh-huh. yàlla ñu wan ñun du ñun ñoo gis yàlla moo ñu wan ñoo sàkku yàlla wan ñu nag uh-huh. gis nga yàlla wallaay yàlla yàlla dafa maye sëriñ bi yàlla li mu maye <laughs> man limu ma may lu tuuti la am na ñu may lu bari uh-huh. waaye la muy maye jeexut xaajut fa man rawuma kenn de ñu baree ma raw donte am naa ñoo xam ne maa leen raw waaye ñu bari ñoo ma raw am na réew mi ñoo xam ne ci ñaankatu yàlla jaamukatu yàlla yoo xam ne li ñuy gis buñ la ko waxoon Hmm. loolu ñu gis yàllaa ñu ko wanoon. ko gis ba xam ko ba pare doonatul lu rëy ci yow. yàllaa ñu hmm. ko wanoon. nii rek hmm. la demee.